moom mi nu mayoon nëga daaw ñu teew fi mu may nun teewaat fi nëga ni ren ñu ngi koy sant ñaan mu may nun teewaat ku dibén yu bëree bëri di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér mboolem kilifa yi diine yëpp di ko ñaanal njabootu Serigne Touba yëpp di sant bu baax a baax imam ci taxawaay bi nga xam ne taxaw ne ko ci jumaa ji ak mbooloo mi nga xam ne ñoom la àndal muy muxaddimatul xidma ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy ca di ko jaar liggéey ci toolu Serigne tubaa ci rawatina ci weeru tedd wi nga xam ne mooy shahru Ramadan ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm nii nga xam ne noonu lañ ko baax def at mu ne bu ñu agsee ci bis bi ànd ko Cheikh Mahamadou Basir mi nga xam ne day woo bokk yi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Bara ak ñi nga la xam la ñoom la bokkal Daaru Khoudoss muy waa kër Cheikh Mahamadou Moustapha ñu ànd ko ak imam ak daayira bi teew ci bis bi na mu ko daan defe rek noonu la ko daan defee kenn ku nekk xam ne lu jiitu bis bi woote woon na amoon na fi ndaje moo xam ne woote woon na ko am ndimbal yoo xam ne da ko doon dimbale jumaa yi ak daara yi lii nag dafa bekk aada la joo xam ne nii wax ñu àggee ci bis bii rek dana dajale ay bokkam ak ay xaritam ñëw teew ci kanamu imam ak waa daayira bi yëpp indi li nga xam ne noonu la ko baaxoon a def muy li nga xam ne addee Sëriñ Tuubaa la ak euh, def gi mu koy def defu ko jëmmi boppam da koo defal Cheikh Mouhamadul Moustapha bi nga xam ne mooy ba Cheikh Mouhamadul Amine Baara ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Mouhamadul Amine Baara Mbacke gépp nag ca kenn jiituwu ca ki nga xam ne mooy Cheikh Saliou Mbacke di xalifaam di magam di kilifaam di léppam loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne waxoon nañ ne bu ñëwee danañ ko ci yëkkati rek di sant bu baax a baax imaam di sant daayira bi nga xam ne itam ñoom la àndal liggéey bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu yàggu koo taxawee lépp luñ ciy def it yàlla defal leen ci yiwu kawe seen njot wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci tur suñu mbokku mbaax mi di sëñ Basiru mu def li nga xam ne yàgg na koo def eh, ndax foo ko fekk lu lay def tey jii mu defati ko ci barab bi nga xam day mel ni fii rek la la ware mu yëkkati lu ñaari million di ko sëñ ak Buso ngir daayira Muxaddamatul Xidma ngir muy li nga xam ne moom lay def ci ndogo yi loolu nag da koy def boppam la koy defal waaye tim mboolem bokk yëpp ñoo koy def ndax Sëñ Tuubaa tax mu ñu ko def kon nag ñun dañuy sant rek dañ ko teewee di ko ñaanal yàlla mu gën koo man te mu te mu yàgg lool di ko gërëm nag ci turu mboolem bokk yi turu mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi ci lu baax li nga xam ne mi ngi koy def fii di ko def feneen ndax nit bu fekkente ne bii yàlla da ko xiir ci liggéeyal maamam si Cheikh Mamadou Lamine Bara yàlla xel ko ci liggéeyal daara yi yàlla xel ko liggéeyal jumaa yi kooku mën naa ne kenn gënu ko kon suñu bés yàlla na yàlla jàppale suñu ko seet mu duy la wax wa barakaatu gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent sallallahu alayhi wa ñi ngi amaan mbégte gannaaw bi ñu yàlla mayaatee ñu teewaat fii ci jumaa ju sell ji ci weeru teddu mag wii ci bis mujj yi àndaat ak sunu kilifa Cheikh Ahmadou Bachir Mbacké moom suñu xaadim xawa ba mi nga xam ne dafa fasante kóllëre ak daayira mu xaddamatu xidma bii nga xam ne ñoom la euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha dénkaat ñuy saytu ak xorma yi jumaay Touba te seen kilifa nekk ni toog sëñ Afe Bousso mi nga xam ne mooy jëwriñ ji ànd ak njaboot gi yëpp ñu fasante kóllëre Cheikh Mouhamadou Bachir bi nga xam ne gisul lu dul liggéeyal sëriñ Touba ak liggéeyal lislaam saa su ne da bi di ci taxawaayam ci biir jumaa ji du moom rek waaye li alxuraan di wax naa li misli hada fal yaamal aamiluun wa fi wa fi wa fi daalik fal yatanaafisul mutanaafisun saa su ci lool lay nekk mooy comme xam ne sëñ Tuubaa amul du bëgg-bëgg jumaa ji dëkk bi rek la bëggoon ak jumaam ji te jumaa ji sëñ Tuubaa daan ñaan yàlla yàlla euh, melal ko ko ca anam yi gën a mucc ayib te anam yooyu saa su dañ koy soxla moo tax soxna Basiru jël euh, tànkam jël jotam jël léppam jox ko waa ma xaddama xidma daayira ma xaddama xidma loo xam ne soxla nañ ko ci jumaa ji moo xam ci wàllu matériel la moo xam ci wàllu moyen la ak lépp lu mat doon Cheikh Ahmadou Bassirou bu ko mënul ci loxoom dana fexe wuti ay gaay yàlla ay jàmbaar yoo xam ne dana ñëw jàppale ko daayira Moukhaddamatoul ma mën nañu tudd kenn koo xam ne jàmbaar la muy Serigne Abdoulaye Dieng Sénico mi nga xam ne chaque euh, dana yëkkati somme bu am solo euh, jox ko Cheikh Ahmadou Bassirou pour mu indil ko ko joxal ko jaami yàlla yi nga xam ne ñooy dogoo fii ci biir jumaa ji sànq si Abdoulaye Bousso wax na ko nee na daaw daana toll ci ay 4000 mais na ren àgg nañ ci 5000 kon loolu day wane yittewoo gu dëkk bi yittewoo lii nga xam moom la ñuy defal te yàlla tax muy ndogu yii nga xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam doon wax ne dee leen fegu ci a donte xaritu tàndarma la te tey ku fi ñëw tey nga gis liñ fi indi ci xeeti ndogu loo xam ne mucc na ayib ci loo xam ne moom la jamono tollool da gis ne lépp mat na fi ba mat sëkk loolu nag gàcce ngalama daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne seen taxawaay depuis ñu jox leen jumaa ji ñëpp gis nañ xar kanam gi jumaa ji ci wàllu xam ci wàllu taar ci wàllu xorma ci wàllu lépp lu mën doon fanweeri fani koor gi lépp ay borom xam-xam la ñu indi fi takkusaan ñu daje fi di waxtaane xam-xam waaye indi ñoo xam daanaka ay mufti lañ doon ñuy def ay fatwa lépp loo xam ne lët na ci diine ku ko laaj ñu tontu la ci loolu nag Cheikh Ahmadou Bassirou nee na euh, mi ci sant waa daayira ma xadma xidma bi nga xam ne ñoom ñoo taxaw lu mel noonu di leen wax ne lii nga xam ne boole nañ ko ci moom moo leen di sant dama ko waxoon at yu ne moom moo leen di sant ndax ku ci lu baax dalaa bëgg dimbali ndax lii rek moo am lii rek mooy mujj doomu aadama ay jëfam lépp day dog gannaaw bi fi jógee lu dul jëf yu baax yi mu doon jëf moo tax ñoom nee na mi ngi leen sant bu baax ci yaatal gi ñu ko yaatal ak woo gi ñu ko woo def du baax bu sant am moo leen di sant sant googu ne nee na mi ngi koy jël teg ko ci loxol ah, sëñ Afi Bousso mi nga xam ne tayul ñëpp gis nañ ci ak baaxam ak lewetam nga xam ne jiite mbir mi yàlla moo ko tànn pour mën ko def lu mel noonu Cheikh Ahmadou Bassir nee na incha allah fu ñu ko soxlaa ak fu ñu ko wooree ak lépp lu mu xalaat ne sax moom waxuñu ko waaye gis na ne lii bu ko ëndee ci jumaa ji dana yokk taaru jumaa ji dana yokk maanaam ni jumaa ji doxe ci wàllu moyen ak lépp man doon neen incha allah fas yéene loolu mu indi ko ci biir jumaa ji ndax bu ko defee boppam la ko defee waaye liggéeyal na Sëriñ Tuubaa liggéeyal na Cheikh Ahmadou Mountakha mi nga xam moo fi nekk bi mu nag ànd nag mbooleem njaboot Sëriñ Tuubaa mën naa ko wax ndax Cheikh yaatoom eh, ci mën a yaatalam ci léppam fu muy jug eh, day ànd ak nit ñi te nit ñi eh, njariñ rek ku leen ko amal ñu ànd ak yow ndax Sëriñ sax daa daa nafin bi laa dara damay borom njëriñ la ànd ak loraange ñëpp da wut dara lu dul njëriñ loo ku mën a mel noonu doomu aadama da wuti la Cheikh Ahmadou Basiir noonu la mel moo tax bi mu ñëw mbooleem njaboot suñu tubaab gi ñoom wàkk suñu moom ñoom ñëpp ñëw waaye budd kër suñu daje suñu Cheikh Abdou ni toog di magam di xaritam di léppam nga xam ne ñoom ñaar yàlla moo leen boole ñu bokk liñ bokk waaye bokkaat ak xaritoo goo xam gis sëñ bas da nga gis Abdou Bali foo gisee sëñ Abdou Bali da nga gis sëñ Abbas te loolu ma mën ci lu bare bari yàlla boole leen ko kon ñi ngi ñaan yàlla daal ci barke sëñ bare bare yàlla gën a dolli suñu kilifa yi nga xam ñi ñi indi seen i fii ci jumaa ji yàlla gën leen taxaw ba lépp lu ñu yéene jumaa ji ma ko ci barke sëñ Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asal mursalin def sëñ Touba asalaamaaleykum kilifa yu tedd yi nga àndal sëñ Cheikh Abdou Bali ak sëñ Abdoul Aziz ak sëñ Cheikh ak sëñ Bachir ak mboolem bokk yu baax yi nga xam ànd nga teew ci bis bi ñu delooti rek di feeñal suñu mbégte ci seen teewaay ak suñu cant ak suñu ngërëm di wax ne lii lu rëy ci nun la ndax nun njaboot sëriñ bi dañu ñoo xam ne liggéey sëriñ bi rek moo na ñor kon buñ demee ba toll fii njaboot sëñ gu toll ni gu toll gu toll ni gi fi teew tey teew fi loola mbégte doon ci noonu xol bu set la doon ci noonu ba man tey xawoon maa xaaru sax ba bi may julli sax xawoon maa tàggu sama taw ci diir boobu tuuti ndax rek xol bu xol ndax rek xol bu xol xol bu set ba tax na kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yow nag gannaaw bu ñu sante ñëpp ba noppi dañu wax ne dañu wax ne jàppal waaye am na yow day bis boo xam te da nga koy ñëw ak say bokk ñu war a feeñal suñu cant ceew waaw suñu cant moom dafay sax ndax sa jëf dafay sax ndax ku geesu ci jumaa ji ñun ñi nga xam ñoo xam li fi dox gis sa jëf te képp koo xam ne mën nga ko lonk andi ko mu jëf lonk ko mu andi jëf te yàlla rek tax la mu jëf nag yàgg nañu ko seq dong ko xam loolu kon jëf ngir yàlla rek la jëf ngir yàlla ak seen tubaab mi ngi ko seqal nga xam ne moo tax nga di ko jëf tey nag day bis boo xam ne say bokk dafa daje kon fokk ñu feeñal cant gi waaye cant gi moom na nga xam dañ cee sax moom tër ak ñaar gën cee sax ndax dañoo jàppale ci bi lool ndax liggéey bi noonu néew nañ ci doole te te waxtu ci dem ba bu suñu xel rek mu di jënt ko fa saasa ci boo xam ne ma sàmm du yëg ma dem wax sax ne bu ko ne ndékk loolu nag nga xam ne seere nañ ko bu baax sëñ mi nga xam ne moo tax nga def mënu ko a seere te it moo am pay nga ñaanal suñ fay fay la yaa ngi am na ñëpp suñ borom musal leen a xam fa ngeen bëgg àgg su ma àggal leen fa ci àggeen ba a rafet ak ñi nga àndal ñëpp barke sëñ ñun daal sant dafa motivé sant waa koñ wax ne weesu na sant ñu ngi sant ñëpp di sant bokk yi nga àndal yëpp itam ndax xam na ne li nga seqal da nga seqal bokk yi ndax lii ku ne xam ne na ndax la waaw lu jafe-jafe la te xam naa ne yàlla te xam ne yàlla te xam ne may na la ko waaw yàlla may na la ko ndax lii moom xol xol mooy xol ju la nangul xol ju la nangul nag mooy da nga leen nangul moo tax ñu nangul xam nga sa xol nangul nga leen nangul nag ànd nga ak bokk sa teraanga taggalul ak say bokk te lu bari nag bari na bari mu koy defee lii nag mel ne def daa boole ak say bokk loolu nag tawfiq la ndimul yàlla lay tam addina moom teranga moom benn mu njëriñ rek maa mu lor dana mu njëriñ rek mu njëriñ dana mu njëriñ waaye daa lor ndax la mu yàq mu ëpp lu mu lor lii nag ku ne xam ne kon li mu njëriñ mu ëpp kon nag ñu ñaan daal kon ku bëgg a àggale yaa bokk ñu àndal yëpp mu àgg mu àgg fa waaye yaa ko xam kon ku bëgg a àgg yaa ko na nga mu bëgg àgg fa yàlla na fa àgg gën a rafet na ko bëggee bak sëñ Tuubaa noonu nag ñu ci barab ñaan rek la ñu man mënul la leen waaye nag ñaan moom ñu ak sant ak ngërëm waaw wax daal lii moom day sant ñu feeñal ko waaye sax ci ñun moom dafa sax ndax sa jëf dafa sax ci ñun moo tax ndax fu ñu toll fuñu gis gis loo xam yaa koy jëf waaw kon ñu ngi sant sant la sant itam mbooloo mi nga àndal ñëpp ci ci turu daayira bépp ak turu suñu xam nga xam mooy kii soog yoon yëpp jërëjëf jazakallahu xayran jërëjëf wala tuhamilna mami bas Mbakke baaray maamam